salaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte dalal fil kii di Mamadou Faye di Modou Faye mu nekk président mouvement réveil liggéey jot na muy milité particulièrement foofu ci Guédiawaye nekkoon na candidat ci élection législative yooyu nga xam ne génn nañ ci jàmm ak salaam ci gox bi Modou na nga def ñoo ngi lay jaajëfal bu baax ci nangu bi nga xam ne nangu nga ñu ko pour ñëwal ñu fi ci Sénégal ñu fas yéene waxtaanee actualité politique ak sociale jërëjëf Cheikh leen di jaar bu baax di nuyu waa Sénégal vraiment di rafetlu invitation bi di vraiment di am plaisir ñëw teew fii ci studio bi vraiment pour ñu waxtaan li njariñu Sénégal di leen nuyu di leen jaar di leen sant merci beaucoup moo Modou euh, taay la ñu génn ci remaniement euh, daal di taxawal gouvernement bu bees. Mhm. ñëpp doon ko xaar. Euh, sa xarit kii di Lat Diop. Mhm. daan nga seentu quand mu dugg ci gouvernement bi quand <laughs> dëgg la waaw loolu question bu may sawar a tontu la. Mm-hmm. parce que ku nekk doon na xaar remaniement bi amoon fan yi passé président doon ko def euh, yaakaar naa tànn monsieur le ministre euh, Mat euh, Amadou Ba. Mm-hmm. donc mu doon former gouvernement ñun dëkk Guédiawaye yëpp nag doon lañ xaar pour suñu waa ji muy Lat Diop. Mm-hmm. pour ñu jox ko poste bu am solo. boo xamante ni wax dëgg yàlla yéenam ci Guédiawaye dina ko mën a eggale ak fu dul Guédiawaye. vraiment duñ na déception liñ ci am waaye vraiment amuñu peut mooy li ñu doon xaar si moom parce que li mu liggéey yaakaaroon ne dana am loo xamante nii comme ni yeneen ministre yeneen ñi jël si yeneen gox yi wax dëgg yàlla yaakaaroon nañ doon ñu ceen ñun waa Géejawaay ñu defal ñu ko ministre est-ce que san san sanctionné wu ñu leen parce que Géejawaay quand même amul benn ministre bu fa dikkee waaw du ma ne sanction ah, parce que euh, madame le ministre neen Fatoumata Tall ñu ngi koy encourager vraiment di ko remercier si taxawaayam ak liggéeyam bu rafet bu mu def hmm. yaakaar naa def na liggéey bi ni mu ko war a defee président nag moo am sañ-sañu tànn moo am sañ-sañu teggi yaakaar naa du sanction parce que nit ki liggéeyal na la xëy na am nga satisfaction pour yóbbu ko feneen loolu rek lañ koy jàppee mais jàpp nañ tamit ne ni géejawaay vidde nii mun na ñàkk parce que lu toll na géejawaay département géejawaay amul dara nga dindi ko benn laaj job moo fa nekk rek koo xamante ni tey moom moo fi yar ñu mën a tudd yaakaar naa loolu doyut ci géejawaay Mm-hmm. kon nag war nañ gën a dooleel président Lat Diop mu gën a am taxawaay ci géejawaay parce que liggéey bi mu def géejawaay waa géejawaay rafetlu nañ ko te fonk nañ ko it. Mm-hmm. géejawaay mu nekk commune bu mag nekk département bu bu ngandee ngandee. Mm-hmm. est-ce que tey le fait que président am fa benn nit rek du neewal doolee coalition bii di Benno Bokk Yaakaar. waaw mais yaakaar naa loolu moom mu ngi ciy bàyyi xel parce que nit bu fekkee da nga dindi ay nit am nga ay nit yooy teg mais tàndiif bi moom lu ñu war a xoolaat ñan lay tànn. Mhm. ak ñi fa jógee nan la leen moo parce que bu fekkee ne fii 15 mois moo des fii ak nga bëgg a tànn teggi ñëpp teg fa ñeneen yaakaar naa liggéey bi day gën a sooxe. te nga soxla électorat te nga soxla électorat mhm. département bi certes perte nañ ko deux fois dem nañ élection perte ko effectivement lu wër la mais liggéey bi président Lat Diop def ak ñam ko àndal. Mhm. yaakaar naa bu sottee liggéey bi bu Géejawaay mun naa ñëwaat département Géejawaay m beneen bi mu seet yeneen communes yi ku mel ne euh, maire Ndiarlem Limamoulaye bi ma dëkk. Mhm. maire bi tamit war nañ ko dooleel parce que jàmbaar la. Mhm. mais ñun commune bi ñu dëkk amuñu amuñu DG amuñu kenn par rapport comme Wàqinaan Wàqinaan boo xoolee. am na six DG yu fa nekk am na Racine am na ñeneen. Mhm. am na ñoo xamante ni mën nañ six personnes. mais taxawaayu Lat Diop ci Géejawaay moom moo amul keneen ku ko su keneen ku ko secondé loolu moo ñu manqué ak Géejawaay. mais ra euh, kii Lat Diop taxawaayam bi mu am Géejawaay. nga xamante fudul géejawaay ñëpp fonk nañ ko gis nañ ko dama jàpp bu ñu amoon keneen ku mel noonu département géejawaay dootuñu ko perte. mais lu tax mu pertoon kon élection locale yi. waaw locale yi dafa amoon problème parce que locale yi si tànneef bi président moo tànn Lat Diop. Hmm. am ñu d'accordul si tànn bi ñu ko tànn. Ah, hmm. hmm. nii si loolu la jógee. dama jàpp nit boo bokkee fenn discipline de parti président bu tànnee ni kii laa teg ñëpp mais président Lat daf ñu woo jox ñu ay moyens campagne ñu ànd ak moom campagne. Hmm. yàlla dogal sottiwul parce que li ñoon li ñu jàpp mooy à chaque fois bu ñu tegee keneen teguñu la yow yow da war a xeex kooku fi nekk. Hmm. man géejawaay loolu mooy li pertel président géejawaay mais bu dee président moom en personne investissement yi mu def géejawaay ak liggéey yi mu def géejawaay waaye géejawaay ñu ko bañ. Hmm. parce que boo yeewoo génn foo jaar ngay gis ay réalisation yoo xamante ni lii président moo ko fa def. kon kooku yaakaar naa gaa géejawaay war nañ gën a xoolaat seen bopp bu baax xool fan la ñu war a pour ëllëg mais mm-hmm. nii ñuy tànne yaakaar naa baaxul tey noonu bu lii ñuy waxtaan nii ñu ci jógee yaakaar naa géej waaye gépp danañ retourné waat ànd ak Lat Diop ñu ànd jàppale président de la république mm-hmm. yow nga nga nga nekk ci biir géej géejawaay ñu am fa Aliou Sall am fa nen Fatoumata Tall mm-hmm. am fa Kafa Touré am fa ñeneen ak ñeneen mais lan moo tax yow nga taamu particulièrement di plaider kii di Lat Diop waaw xam nga voilà c'est ça am nga wax nga lu am solo du cadre plaider xam nga nit bu fekkee li muy liggéey lu wér la loo xamante boo waxee nit du ko weddi da ngay am sañ-sañ foo taxaw wax ko mille plus de mille deux cent personnes yoo xamante ni am nañu contrat yoo xamante ni ñii ay embauchement yoo xamante laaj ni mm-hmm. tembe nii am na plus de cent charretiers yoo xamante nii ñi ngi leen dugal pour ñu am ay permis parce que xam ne liggéeyu charrette du lu wëy ay permis ay borom fas fan yi passé may na leen dix tonnes dugub yoo xamante nii ci crise ba mu méttee actuellement am na vingt tonnes yoo xamante ni jox na ko benn xale bi ñuy wax Omanga vingt tonnes dugub yoo xam ne war na koo séddal may leen ko. pour fas yi pour fas yi ba pare jël sans permis jox leen ne leen bàyyi leen fas yi soo leen paree mu wute leen motocycliste mais ku mel noonu di xalaat génn nit ñi si ñàkk gi ñu nekk par rapport ak ñi ngi may tuddal ñi ngi may tuddal depuis man 112 ans dëkk Géejawaay amul benn politicien ak ku mën a doon 112 ak léegi li Lat Diop jotoo def Géejawaay benn politicien def ko fa amul. Hmm. ñu ñu fal seen bopp lañ fa nekkal ah wala sa koñ ngay nekkal mais président Lat Diop nu mu taxawee osé e, muy wàqi naan muy Sam Notaire golf njaaram li amulaay ba dugg bi dugg bi asag naa bay dem Tivaouane Pël yaakaar naa taxawaay bi mu si am nii si am président amoon keneen ku mel na moom jàpp naa Géejawaay département Géejawaay gépp danañ maase jàppale président Lat Diop. mais yow yaa ngi fay def te amoo statut wu Lat Diop quand même. waaw mais man loolu. te yow xamee nañ la ci social ci dimbali ay structure sanitaire ak yu mel noonu. loolu moo tax mu mën a ànd ak moom parce que man néew ma fi woon bitim réew laa nekkoon def fa dix dix huit si investir Géejawaay gi ma dëkk. képp ku dëkk géejuwaay boo ko laajee kii lu tax mu dugg ci politique bi sax danaan la xaw ma ko parce que moom musta liggéey ci état man hmm. état musuma nommé musuma am nomination musuma liggéey ci état musuma am bulletin de salaire Lat Diop li ma koy waxal dama gis koo xamante ni man jàppoon naa ne amatul ci ci ci Sénégal man ba ma ñëwee gis ku mel noonu muy liggéey ba ñu àndee léegi yàggut mais dama jàpp ne lépp lu baax lu mu yëg lu ne bu dee ko feebar mu taxawu la bu dee loo xamante ni nit ki war a am dignité mu taxawu la xale yu ndaw yi nga xamante ni mooy jeunesse bi nga xam amuñu doole amuñu lenn luñ def lu ñu jàppale leen mu taxawu pour jàppale leen jàpp naa ku mel noonu depuis élection yi ba mu jàlleeg léegi plus de deux cent nangam personnes mu jël leen ñoo xamante ni tey su ma doon xëy damay dem seen kër fëgg leen ne fii lañ dëkk mais ku mel noonu dama jàpp ñun géejawaay gépp war nañoo fàtte suñ yokk doole ndax ko yokkoo doole ñun ñëpp dañ gis suñ bopp d' accord mhm. ok nga nekk tamit euh, en tout cas soutien président de la république gis nañ bu mu taxawalee euh, gouvernement bi di jee bu bees mhm. jël Amadou Ba teg ko premier ministre Mimi Touré mi nga xam ne daa boppam ci poste woowee génn daal di bëddi et puis commencé di créer structure bu bees mhm. di attaquer président Macky Sall ndax nga ko jàngatee en tant que waaw man déception laa am si loola ah. vraiment ah, regret bu metti parce que dama jàpp ne Mimi Touré lépp luy la defal président wax dëgg yàggul si président laa ko xamee mu def ko premier ministre. Mm-hmm. yaakaar naa muy loo xamante ni tey àdduna bépp képp ku dëkk képp kuy Sénégal bëgg nga ko dekk nga jël la encore mu jël ko ne ko kaay jiital ma lii élection yi ñu jëm yaa ma ci doy tëjoog moom wax ak moom ñoom ñaar képp ci ay kàddu. Mm-hmm. dama jàpp ne ci ci élégance ci ci lu rafet même bu la jëlul samp la nga ànd ak say nawle ku mu mën a jël war ngaa mën a ñëw jàppale président sans kenn dégg la. Mm-hmm. nit ku yow rek yaa war a falu. da nga ànd ak ay nit ay mbooloo. ñoo xamante nii dañ leen di jël yow dañ lay jël ñu bàyyi leen ñoon te kenn du leen dégg ñu wax donte bu ñu amee leen naqari sax duñ ko génne parce que man diiran ñuy nommé euh, euh, Aminata Touré musuma gis nit ku taxaw ne lii war ñu koo def mais moom pourquoi à chaque fois bu ñu ko génnee rek moom li muy njëkk a wax mooy que ne warumaa dem indi benn benn buri boo xamante nii jàpp naa képp kuy gor waroo doxee noonu hmm. pour dafa nekk ak say nawle li président def yaakaar naa sagal gi mu ko sagal moom waroon na keneen moo waroon mënoon di wax mais moom warul wax benn moo boo xamante ni nit dana ko jël di ko yóbbu fenn vraiment wax dëgg yàlla bu dee damay analyse rek di wax moom li ko président lebal fayu ko ko parce que bu ko fayoon même buy bàyyi politique toog këram loolu moo gën a élégance loolu moo gën a rafet hmm. nit boo defee tranga tranga tranga moo koy fay hmm. man mi di wax sénégalais la man musuma am benn poste bi ñu fal te pourtant maa ngi hmm. noonu keneen keneen keneen noonu donc moom yow buñ la falu rek du yow rek yaa yow falu déedéet nit ki da ngay da nekk koo xamante ni doo hypocrite wala yow ngay auguste koo xamante ni buñ la jëlul nga ne li fi nekk baaxul loolu du àdduna loolu daal laa ko gisee quoi pour man daal li muy def na waxtaanaan njegenaayam waxtaan ak xelam ay mbokkam waxtaan ak moom mu ñu ñu ñu ko mu jóge si li mu ne xam ne li mu nekk amul njariñ donc loolu laa koy wax en tant que. gars yi nee nañu c'est un gouvernement de combat gouvernement de combat ci bi nga xam ne dañoo am fii ci Sénégal benn opposition boo xam ne c'est une opposition radicale mm-hmm. ndax nga jàngatee ambition yi mel noonu. waaw mais mais président boobu avant muy wax sa gouvernement combat mais ñoon seen bopp ministres yi ak DG yi ñoo war a njëkk génn comme ni président laaj da am ñoo xamante dañoo radical Sénégal ko yàq xam Sénégal démb ak Sénégal tey ku nekk war nga tiit sa bopp ëllëgu Sénégal mm-hmm. parce que lu gën a mooy nit kuy sos nit kiy créer lu nekkut xam nga ni ki mën nga opposé wu yàlla joxee nguur nga jël ko mais nit koo xam ne day créer wax lu amul te sénégal yi ñi si ëpp xamuñu dara donc ñoom jàpp nañu li ñu gis si Facebook bi wala ñu gis ko si réseaux sociaux yi dëgg la te ñii dañoo am temps loolu nag ñi nga xamante ni le président fal jël leen jox leen ay moyen ñoo war a taxaw à face ak ñi nga xamante ni dictateurs yi nga xamante ni ñuy créer di sos di wax lu nekkul te loolu àdduna bi fi mu toll nii boo noppee nit ñi ci yëg sa kaw jàll ñoon ñi président te xam ne li ñuy wax dëgg la parce que jàpp naa ne amuñu intérêt wax lu dëgg ñoon parce que ñoon la ñu fal ñoon ñoo yor bilan ñoon ñoo yor ay moyens ñoo yor lépp yaakaar naa ñoon war a gën a mën a dégg ka nen génn seen bureau yi wax ak nit ñi dimbalal doomu aadama yi nit ñi àndañoo kenn dañoo sonn rek Sénégal moo metti jamono ji ñu toll nii ku ko wax ak ku ko waxul ànd ak président ak ñàkk ba ñu ak président lépp moo seer vie bi seer na dund gi seer na location bi seer na mais tey loolu mënoo koo gis ne ne loolu yomb na mais loolu président bu si indee ay ay ay ay solution jubbanti yaakaar naa ne loolu day nekk suñu ginnaaw parce que nit ñi dofuñu gis nañ opposant bi nga xamante ni bërki dem boo njaay seen taxawaay Sénégal ñëpp gis nañ ko kon jàpp naa ne ñii duñ ñoo xamante ni ñoom la war a dénk Sénégal mm-hmm. donc loolu laa ciy xalaat d'accord gars yi ñoom nee nañu troisième mandat ko fi waxtaanee dañ koy réer ci réew mi naka nga ko jàngatee waaw man nag damay dégg waaw damay jii di wax di wax rek quoi man wax dëgg yàlla maîtrise wu ma test yooyu mm. mais li may xaar en tant que président bi nga xam moom lañ fal mm. ak conseil constitutionnel bi nga xamante ni ñoom ñoo war a candidature ñoo ko war a jàllale ñoo war a bi baax na wala bii baaxut ñun fi ñu féetee ànd ak suñu mentor muy Lat Diop damaa jàpp ne ñun bu nañu acce moom ci liggéey bi bu fekkee président war na def euh, troisième mandat ñun dañoo pare si loolu ñuy liggéey actuellement nii ñu ngi liggéey pour ak pour ànd ak moom pour 2024 ñu gagné loolu yaakaar naa même bu ñu nekk du candidat am na euh, Benno Bokk Yaakaar am nañ seen candidat ñoon kon yaakaar naa liggéey bi kooku amul xaar te yaakaar naa ñu nag président Lat Diop ñi ngi liggéey liggéey boo xamante ni département Guédiawaye li ñu ko bëgg a jëlaat tegaat ko ci loxo président mm. te liggéey bi yaakaar naa ne fekki fan war nañ dajale plus de yoo xamante ay jeunes luñ ci Guédiawaye sàggal président Lat parce que liggéey bi muy liggéey rafet na ndaw ñu gis seen bopp te lépp di dara waralu ko lu jàppale président de la république ci taxawaayam ak ak ak mu dooleele président Lat Diop parce que président Lat Diop lu mun a mën a mel rek président la moo ko jox foo xamante ni mun na fa dugal nit bu fekkoon dénk ko dara munul jël kenn kon nag duñ koy vraiment rafetlu di ko wax ne ko na ko yokkalaat rek xëy liggéey bi feeg si kanam dana gën a changé incha allah bu sant ñëpp ak gërëm ñëpp rek <laughs> sant ñëpp gërëm ñëpp di ñaanal barab bi yàlla def fi jàmm mm-hmm. vraiment di la félicité bu baax a baax di la encouragé lena mm-hmm. gis nañ investissement bi yàlla na la suñu borom gën a jàppale jërëjëf merci beaucoup ñooy doon dalal fii nekk xaritu Lat Diop di soutien président de la république ñu doon waxtaane quelques points yi nga xam ne dafay jëm ci mbirum actualité ñooy lay jaajëfal di di leen di daje ba beneen yoon ak beneen invité fii ci senego point com merci jërë ngeen jëf